dimbalante am na solo lool ci jamono ju ñu mouvement bii di ànd qui s'active sur le social éducation et environnement mais aussi pour les collectes de dons pour les hôpitaux dara mosquées jumon, écoles, prisons, pouponnière et internats. donc yow mi may déglu si tu veux vraiment aider N'hésitez surtout pas à faire un don par Wave ou par Orange monnaie sur le numéro 78 433 44 51 de Mouvement MAD dirigé par le président directeur général M. Alisek. Ce mouvement s'active pour le bien-être de l'humanité. Pour adhérer, envoyez un message par WhatsApp au 78 433 44 51 Ande Barna, Amna solo Magandang night. above me. Demirel. kenn d'accord woon yàlla continuer di leen wax ni ñu ngi jëm ci période bu métti muy période boo xam ne électoral dëgg la maa yaayu Pastef waaye maa yaayu Sénégal ndax dama dégg ministère de la famille et des solidarités moo tax jàmm rek laay ñaan ci réew mi moo tax yàqkat yi yàqkat yi duñ leen may benn We Tapi

social shopping technology SST yéen ñi nga xam ne da di yëngu ci wàllum technologie parce que de le Médiamono nous travaillons dans les différentes filières vente et installation de caméras de surveillance vente et installation d'équipements de sécurité de maison maintenance et gestion de parcs informatiques câblage réseau informatique vente de PC téléphone portable accessoires création de sites web développement d'applications mobiles money social shopping technology. ci